xalifa yàlla yàllaay xalifa waxuma waxi dof de xalifa mooy yàlla yàllaay xalifa Serigne Cheikh Tidiane si bañ ko laajee ci diggante yonent bi ak Seydina Cheikh daf ni nuunaani nuunaani lam yaktub huma qalamun fii kulli nuuni min an nuunaani aynaani aynaani aynaani lam yaktub huma qalamun fii kulli ayni min al aynaani nuunaani xam nga lu muy firi Serigne Cheikh nee na mënuma koo wax li ma ci xam mooy ndax galaasay ndox wala ndoxay galaas yàllaay sëñ Babacar Sy sëñ Babacar Sy mooy yàlla ah mu ngi ci màggalam yooyu le daal ak cantam yu ak sabaalam yu ne ci buur bi nga xam ni sëddoo man di samawaati wala tasbihan jamila subhaana wallahi waqa rabu samawati wa bayna mawasil qasa lépp moom moom dara desul subhaana man jëlaani tasbih wa tanzil kullu fi jëlaani li jëlaali zalil sunu mu ne sunu sell buur ba nga xam ni màgg na mooy tës bi ci nirale tam si ak misaal kenn wax ni yàlla ak diwa niroo kenn wax ni yàlla nii la mel kenn wax dara ah ndax lépp loo xam ni ñu ngi ci sab xol yàlla wuute naag loolu de kullu ma yaxtaru bil baari fa allahu bi xilaafi dalika shay wa anna allah taala gayru mustabahin bi zawaati wa zaati hum gayru muattalin an sifaat noonu la yàlla mel kullu ma yaxtaru bil baal fa allahu bi xilaafi dalik lépp lu ne xoot ci sa xol la nga ni ndax xëy na yàlla sa noonu la mel yàlla wuti na ak lépp wuti na ak def lépp nga wax loolu le yàlla du mu lu ñuy nirale ci jëmm déedéet yàlla jëmmam jaa jëmu diwa niroo déedéet kenn wax te itam jëmmam itam du lu ñuy yokk wala walli si melo jëmm ji dama melo hmm. zaat wa sifaat zaat wa sifaat yëpp am na ko hmm. ne kullu fi jalaalin ne yëpp boroomu màgg zalilun inda jalaalihi ndax lu waay am moo la ko jox kala ñaagalee pële loolu moo tax wala yéen a wax ne ku la ñaag moo la pële waxuma laa mu faf jox la ay yëpp kon nag ba walbati ko naa ne ko maag yow a dëkk naa la bëri amaa na xëy na bu lefaanee de waaw set wecc rek fa sànni waaw waaw diggante Abu Yasid al-Bastaami ak yàlla mu ko ne radiyallahu taala yàlla mën naa fexe ba sa sa jaam yi ma wan leen sa mbaax yoo xam ne lu yàgg-yàgg kenn dootu ñu dem safara mu ne ko waaw man nga xëy na man naa mën naa la ko may waaye mën na maa fexe ba ba ba loo dootoon loo ba loo doon dootoo doon dara loo doon doonoon rek dootoo doon dara may man naa ko fexe ba jaam ñi doo ci ñu la xool soo ko mën a di la nuyu dañuy dem seen yoon rek ah. yaa ñu baax ñooñu le waaw moo doon si daas maalik yooyu le waaw ahmadu ahlul hamdi wal kamal dëgg la de moom rek yooyu cant dëgg dëgg waaw borom شكر في صدر الامتحان نعم اوحده نعم انكم يتل يلا ياتو نبغنا نعم، كل بغنا كل يسل ذاتا تجمع كل شيء هالك الا وجهه آه. وصفة بغنا كل يسل كنا لو وما رميت رميت ولكن الله رمي والذي ارسل الرمية وفعلا يسل كويتا بتي تجف الله خلقكم ما تعملون ويهنا ثم يهنا ثم يهنا مكان ثنا وين البقاي آه. waaw jeex tàkk dootuñ si lu dul jëmm ja jeex tàkk jëf jëf jëfam itam melam itam fa tabarakallahu nga jeex tàkk itam ci jëfam آه. ويغنى ثم يغنى ثم يغنى وكان فناء من البقاء الفناء والفناء توحيد من مئة لكم خميس لكن مئة لكم لم يرى du ko du gis la waññeel ko du ko gisal ku foon am nawle wala misalan du caageen kam kem yàlla amul kenn qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad nekku lu koonaat mu jeex kenn doxal ba gis ko fa am loolu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad laa budda kay nga am ci benn <laughs> walam yakku lu kufuwan ahad ah balaa fekk kon kay xanaa nu ma la nekk nawleem fekk moo moo muy bind luy bind daa mu bind nu bind ko waaye moom amul dara di daal salihin waaw waaw kooku